nuyu naa leen bu baax a baax euh, mbokk internet yi nga xam ñoo toog di seetaan na Diaspora 221 amaat mbégte ak contentement a su nekk di jàkkaarloo seen site d'information bi nga xam ne nee naa actualité à temps lañ koy joxe nee lépp loo xam ne rek euh, yitteel na réew mi waaye lépp loo xam ne rek euh, réew mi soxla nañ ko dañ leen koy indil ci seen biir euh, émission bi nga xam ne rek wax na tubaarkaal naa la 100 pour cent rek information la ma jàkkaarloo ki nga xam ne rek kenn dootu ko présenté Sénégal mu Ousseynou Fall ndax boobu léegi yéen ko gis ci yenn plateau télévision yi nga xam ne ci association militaire invalide du Sénégal yi la bokk Ousseynou nuyu nañ la. waaw maa ngi lay fay soxna si bu baax. ñu bàyyi la nga nuyoon waaw ñoo ngi naa bi nu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi di gërëm suñuy waajur di sant kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal yàlla ñu tawat ki si hôpital yi ak ñu tawat nekk si kër yi ñoo ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom may leen wér ñu génn àdduna tamit suñu borom xare leen àjjana di ñaan si réew mi jàmm Euh, comme ni mu ko waxee di ñaan ci réew mi jàmm ñun aussi ñu ngi ñaan ci réew mi jàmm ak salaam ni ma ko tàmm di waxee rek Sénégal xamuñu dulul foo kafre jàmm lañ xam ak ambiance Ousseynou mm-hmm. ñu bàyyi la rek nga wax ni kan mooy Ousseynou Fall. waaw man la Ousseynou Fall ancien militaire invalide du Sénégal bokk ci association bi naan ANAMIS. ANAMIS moo ëmb képp koo xamante ni rek takk der nga woon mm-hmm. euh, soit nga nekk corps militaire wala corps paramilitaire. amee amee laago si sa si bi ngay nekk en service wala soit nga jële nga jële feebar après nga retraité génn armée euh, association boobu moo ëmb ñooñu. Mm-hmm. association association bu mag la. bu mag la. Mm-hmm. bëri nga waaw bëri nañu tol nañu si euh, trois mille et quelques. macha allah waaw <coughs> euh, yow mooy président association. Issa Gueye. Issa lan nga ci association. waaw man maa yor organisation. yaa yor organisation. mu mel ni uh, bu yàggu dara dañoo dañ cee dañoo dégg ay quatre points yoo xam ne président de la république daf ko signé woon pour yéen mm-hmm. mais est loolu ba léegi matale nañ ko. non loolu matale wuñu ko parce que président yàlla dafa dogal ñun invalides invalides yi mm-hmm. à chaque fois dañuy dund jafe-jafe. Mm-hmm. nga dund jafe-jafe weesuwul. Euh, nga nekk jeune tàmmoo benn métier lu dul métier yàlla dogal nga dem armée euh, bi nga dem armée dan dan la xool saytu la ba nga wér. kon yàlla su dogalee nga jëlee fa ay blessure xam nga te lépp daleew la lu ngay servir sa nation euh, suñu àq ak suñu yelleef nag ñu ñu ñu salfaañe ko depuis le début waaw depuis le début ñoo salfaañe suñu àq suñu yelleef mhm. parce que tey képp ku dem armée blessé wala soit nga feebar am na lu état bu Sénégal warloo yow am na tamit lu armée warloo yow mhm. mais yu bëri dañ ko salfaañe. Mhm. nan lañu salfaañe seen àq ak seen yelleef. waaw suñu ak suñu yelleef ñu ko salfaañee mooy que ni euh, dèjà droit yi nga xamante ni moom ngay war a jot pour nga jot ko problème lay doon parce que parce que lu mel ni pension mixte amoon nañu si droit mais bi ñu ko waree jox dañu dañu bu ñu koy xees jamonoy Ablaye Wade Ablaye Wade jëloon décision pour jox ñu ko ba pare tegal ñu si buña buña bi mooy dana daf ñoo tegaloon ni ñu ne tey inv inv lu nekk dañ ko jox kër ak dix millions Ablaye Wade. waaw jamonoy Ablaye Wade. jamonoy Macky Sall. waaw léegi nag fa yàlla dogal na si diggante bi laay Wade wàcc Macky Sall bu ñu yéegee bëggoon àggali yéene boobu mais à chaque fois dañuy gis ni président moom mooy mooy chef suprême des armées mais heure bu jëlee yenn yenn décision yi si si ñun suñu nga xamante ñooy ñooy militaire invalide yi dañuy gis nii dafa am yenn autorité yoo xamante ni dafa mel ni ñoom affaire bi daf leen di daf leen di déranger daf daf leen di déranger. autorités yi si yenn. yi nekk ci gouvernement yenn autorité militaire ah, yi. yenn autorité militaire yi laay wax li ma wax dafa dama ko xam bu baax. Mm-hmm. parce que Ablaye Wade moo toog ak moom mu recevoir ñu temps yi def marche yu bëri jamono Ablaye Wade. Mm-hmm. bu ñu recevoir mu xamal ñu ni carrément mais yéen dañ ma xamal ni yéen ay drogué ngeen. mooy militaire invalide. waaw parce que dañ naan parce que di marche. mais ñoom bëgguñoo ñu toog ak ñu toog ak ñu toog ak Ablaye Wade xëy na. ko bëggul yéen ah, mais autorité autorité militaire parce que ñun parce que su suñu njaboot suñu njaboot armée la ñu bokk. Mm. Ablaye xam nga ku koy wax président ku koy wax waxul leer Ablaye Wade ko xam xam ni xam ni dafa direct ci salle bi ko waxee devant tout le monde. mu ne dañoo ñëw wax ko yéen ay drogue ay ay ay ay ay drogue lañu mais yéen ku leen xool xam ni yéen ay nu ñu crotté ngeen ay nu ñu baax ngeen ñu ku ñu xool nga di yàq di yàq suñu der a chaque fois dañuy gis ni dañuy yàq suñu der si digganteem ak suñu digganteeg ñun ak président parce déjà sorti ñu fi def rek temps yi passé dégg nañ suñu lu ne. non balaa ma ñëw ci bi ngeen ñëw bi ngeen bi ngeen def temps yi passé damay ñëw ci euh, li nga wax ci euh, leen président Abdoulaye Wade waxoon hmm. mu nekk lu doy waar. parce que fogg naa ne doomu adama bo xam dafa doon xeexal réewam wala di def ngir réewam yalla tek ko ci nattu mm-hmm. tay mu nek militaire invalide fogg naa ne bu amé liñ ko wara jox da nga wara a ñu jot ko mm-hmm. mais tay comme li ngay wax ñu dem ci Ablaye wad yak fa sen der ne ni ay drogue ngeen est-ce yeen comme association mat na 3000 personnes mm-hmm. wala lu ko jege wala lu ko upp est-ce yeen def ngeen euh, lijjanti ngeen ba xam information ba wala ñi demone ci Ablaye wad pour yak leen ñan la way yow du kenn mooy suñu autorité yu nekkoon noonu armée kese la ñoom ñoo def loolu am na nag autorité militaire nag am na ñu baax nga xam nga foo dem su àdduna am na ku baax am na ku bon am autorité militaire yoo xamante ni maanaam bugguñu gis invalide militaire bugguñu ko gis te nag dund gu settoo gi nag lu ne xaj na si parce que ñun lu ñu dal ñoom jomb leen parce que ñun ñoo ngi si tous les ba léegi te invalide militaire dafa yaatu nekkul lekk nekkul lekk ñu kese am na ñoo te ñoo ngi si biir rang ba tey ñoo ngi ñoo biir armée soo leen totalee ñun ñëpp mat na cinq mille et quelques. macha allah junoo bëri parce que dafa am ñaari façon indumentaire ki nekk sous le drapeau ak ki nekkul sous le drapeau mais ñun ñu nekkul sous le drapeau teguñu ñu fenn même ñu nekk sous le drapeau sax dama naan teguñu leen fenn te loolu dinaa ko leeral parce que commission ad hoc bi bu mu génnee ñun dañ leen see génne te waruñu leen see génne. parce que ñu nekk en activité pourquoi ñu leen si génne. mais waruñu leen see génne président da ne pour ñu régler problème problème invité tout court. mais à chaque fois président su leen sant dara ñoom ñooy xool ñoom ñu si génn ñu si dugal te xaalis bi génnul seen poos. ok léegi maanaam da bëgg wax ñi nekk ci kaw. ñooy ñooy lekk xaalis dama dama ne waxuma waxul lekk xaalis mais problème mooy que ni heure président jëlee benn décision si ñun dañuy ñoom ñoom ñoom dañu naan lii ëpp na si ñun wala nangam ak nangam. mérité woo leen parce que mais ñun mais mais ñun lan la mérité wul Sénégal mais balaa ngaa tal dara tal jàmm ñoom gradé yooyu gradé yooyu yàlla ak ñoo tax ñoom ñu gradé. parce que ñoom hommes, nous, nous, sur la mais comme vous avez ngi euh, président Ablaye Wade comme ni président Macky Sall quatre points signé. est-ce que non président Macky Sall def mu ko ñu ni dafa le grand blessé. invalide invalide la grand blessé petit blessé bien vrai que nous yi pourcentages. pourcentage parce que blessure bu nekk am na am na ñu am na ñu gën a mettile mais problème bi mooy que dañuy dañuy bëgg jox nii bàyyi dañ leen diviser daal pour diviser waaw voilà pour la voilà pour dem ñoo diviser bi ñu defee loolu léegi ñu créé ramjeuse mooy la grand blesse mooy ñoom quatre vingt cinq pour cent ne ñoo ñoo am pour pour jot dix ak kër. dix millions kër. mais ñooñu dañoo gën a nekk sénégalais wala ñoom wala ñooñu ñoom rek a servir réew mi bien vrai que ñoom ñoo gën a metti ay blessure da lañ nangul

am na grand blessé yoo xam ne sax ba tey jotaguñu te noo war a jot ñu yéene leen ko nag dañ ko war a am mais ñun tamit dañ ko war a am mm-hmm. loolu indi doon coow li bu too coow li amee nag président Macky bu ñu ko yégee ñu jox ñun pension mixte bàyyi ñeneen ñi. jox leen pension. pension mixte pension bi mu naan pension mixte. parce que voilà pension mixte mooy ki nga xamante ni dafa def quatre-vingt-dix jours formation ba at ba at nekk soldat. Mhm. si deux ans si durée légale am mu jëlee si blessure wala soit maladie. ñu ko par raison de santé. ñooñu dañ leen a maintenir par raison de santé continuer di leen fay sol bu fedel te loolu c'est pas normal parce que soo sa deux ans su rombee adel ga sol du adel la la war a fay loolooy salfaañe ak yelleef yi am ñoom dañ leen a dañ leen ñu téye leen quinze ans ñu téye leen vingt ans di leen sol di leen fay sol bu fedel xam loolu injustice la. léegi nag pour réparer loolu moo moo doon Ablaye Wade créé woon pension mixte parce que ñoom droit pour amaat benn pension bu dooleeg si pension d'invalidité bi mm-hmm. léegi nag si ginnaaw loolu nag ñu coow li bëree si la ab Macky Sall ñëw franchement moom te mu def effort mm-hmm. pension mixte bi ñi nga xamante ne amuñu woon. amuñu woon mu fexe ba ñooñu am. matale leen ñëpp. ma matale ñëpp ñëpp am pension mais am na 31 personnes yoo xamante ne des noonu dèjà fayagul leen. parce que mais ñu ñooñu ñoom problème papier nangam ñu nangam mais bëgg a fay fay bi ñuy coowaat pour jot yeneen yeneen dàmpaay yu ñu ñu ñu ñu waroon jox si le président Macky Sall créé commission ad hoc. commission ad hoc bi pour yéen ñëpp la. pour ñun ñëpp la ñëpp la concerné. mais bi mu bi mu waxee commission ad bi ne pour ñu def ko bi ñuy taxal commission ad hoc bi MFA mooy ministère des forces armées dafa bind. ñaari association yi muy anamis ak Ramdiez ban mooy Ramdiez ak ban Ramdiez ñoom ñoo gën a métti moom mooy le grand blessé mooy ñam am taux quatre vingt cinq pour cent mais ñoom ñëpp ay invités lañu ñu bind président euh, Tamsir Fall mooy président Ramdiez bind président euh, Issa Gueye mooy président anamis mais anamis moom moo jur Ramdiez parce que anamis moom moo njëkkoon am moo njaboote ñëpp moo njaboote ñëpp anamis moom moo ëpp mbooloo si veille bi colonel Arfan Sarr woo ki nga xamante ni moom mooy président président anamis bu euh, Issa Gueye xamal ko finalement yéen dootoo leen bokk si si commission ad hoc bi mooy euh, anamis dootuñu bokk mais Ramdieuze ñoo bokk mais Ramdieuze ñoo bokk ñoom la concerné yaa ngi dégg man en personne man am naa dem si une fondation bi si colonel Maxa Keita dem kaas fa ci jour bi jour bi rek commission ad hoc bi dem kaas fa kaas metti ba moom mu yëkkati téléphone am rek la problème bi ba ba anami si bopp mhm. est-ce que comprendre nga te loolu président dane pour ñu régler problème problème li may wax ne dama bëgg mu leer ñoo ko séparé ñoom seen biir loolay war xam nga loolu tegul fenn dama bëgg li may wax ne dama bëgg nag pour président dégg ko xam bu baax li may wax yaa ngi ci mag bi parce que président dafa war a dégg lii parce que président il faut mu il faut mu recevoir mu tooguñu pour mu mën a lu bëri mën a leer si boppam taxe nañ ñu fi nag lu ne ay politiciens la noo ay lu ne teg taxe nañ ñu ko ñu politique ñu laal laal ñu politique dèjà pourtant nekk euh, mardi bi mekit passé noo waroon génn pour def marche mais situation réew mi moo tax ñu bàyyi lépp ñu bañ nañ ko bañ su dara di xew réew mi ñëpp di yëngal am leen metti ñun même bien vrai que ne am na lu ñu metti ñun mais dañuy toog mhm. dañuy toog ànd ak yar ba lépp passé ñu soog a wane suñu metti parce que ñun génn nekkul lu ñu gënal parce que suñu sañon suñu problème day réglé wul parce que lu ñu woon xex xeex nañ ko paré pare xex ba euh, ba jëlee Lagos ba paré heure bi dugg war a jot say droit bëgg bëgg a xeexaat jot droit fa metti kon ñun suñu sañon li ñi défal ñu koy défal ñu tok suñu kër mu nuy euh, mu mais suñu suñu suñu diggé dara bala ñu say jot il faut ñu xeex yéen bu leen waxé lu leen wara jox bala balaa leen diggé dara bala ngeen jot il faut ngeen xeex il faut ñu xex xeex yuuxu fep ñu jox ñu ko suñu koy jox sax buñ ko matalé dañ leen di compal daal. dañuy dañuy jox ñi bàyyi ñi parce que commission bi ko président taxawalee pour bëgg a régler problème mu invalide bi ñoo kaas man kaas naa am naa ko ba nu ba nu boole si anamis léegi nag ñu dem ba si biir génne si nekk ñi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoo ñoo nekk en activité génne leen si. génne leen pourquoi si génne. ñooñu ay ay invalide lañ léegi yéen est-ce que tey à part président de la république comme yéen ci euh, foog naa ne seen seen seen dëkk ngeen doo xeexal ci mm-hmm. armée bi ngeen bokk yéen ñëpp. Mm-hmm. voilà est-ce que tey ak ku si nekk xam na ni euh, wàllum euh, police ak li nga xam mooy armée nationale dafa am ay corps am na ñoo xam ñoo supérieur am na ñoo xam ñooy seen mm-hmm. kilifa ci biir affaire yi. est dem que yéen te ngeen gisante kilifa yi nga xam ne ñoo leen supérieur yéen ñoom pour mën leen wax leen metti si lañu dëkk mais duñu wax dëgg. xam nga nga nekk kilifa di toog di jàkkaarloo ñoo xamante ne yaa leen commandé woon si biir armée bi ngay toog di leen wax lu dul dëgg rafetal kàddu bi quoi dañuy toog ñoom duñu fen carrément nii sans gêne di wax loo xamante ne ñoom duñ ko def leen leen lii lii lii ni mun mënta nekk wala lii sax mën na nekk mais ñoom ñooy ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo si dëgg seen tànk bu sonal ñu. mooy ñu ñu mais si ñu ñaata yoon la def démarche euh, ministère euh, ministère forces armées ñaata yoon lañ fa def démarche di gisanteeg yenn yenn autorités yi imagine toi ministre Omar Youm benn yoon lan lan mën sa recevoir bu mu toogee léegi. te mooy que ni dina waroon génn journée de forces armées. ñoo doon génn pour def marche xam nga loolu image bu ñaaw la. Hmm. journée des forces armées ay militaires ay militaires invité di génn di marche ñoom xam na ni image boobu rafetul parce que su leen laajee ñu ngi yeneen def journée de forces armées te yéen li waral li waral ay journée de forces armées ñii ñii nii dañ see bokk dañ see dugal seen loxo parce que mbooloo mooy doole ah. ñu kenn ñu kenn mënuñoo génne biir armée ñu si njabootu armée lañu bokk ba tey si veille bi lañu recevoir ñu jël ay engagement nag moom parce que dañoo parce que noo bëggoon fay 60 pour cent ba 100 pour cent man mii su loon fay si laay bokk mais bi ma toogee moom dama ko xamal ni carrément comme mbooloo loonu woon di xeex te président avant muy taxaw commission oto bi dafa wax lu leer dane pour mu def ko ñun ñu nekk benn ngeen bëgg na mm. ni autres yenn yenn ce que problème bi kon euh, su ma ma su ma su ma déggee yenn yi est-ce que du ci yéen di xeex benn affaire mm. tey kilifa yi bu ñëwee pour xaajale ñu jox ñii jox ñee du ma jël tant que samay yeneen nawle joxandoo woo leen maanaam yi ngeen nekk bi am benn complicité boo xam benn say ngeen ni doon bu ñëwee bëgg jox ni bàyyi ñi du ngeen ko jox ñëpp. mais loolu la ñu loolu la moom laa la expliqué ministre bi ne dañuy fay ñoom man ministre laa bokkal suñ suñu waroon fay su ma naan waaw mais dana soo leen waxee waaw léegi ñu fay ñun ñeneen ñi xaar man ko loolu du mën a nekk te pourtant soxla woon naa moment boobu. moment boobu ma ne ko loolu du mën a nekk kenn rek du ma tudd turam kenn rek si mbooloo moo taxaw ne dañu fay ni bàyyi di d'accord si loolu ñëpp tax taxaw opposé wu ne ko non loolu loolu du si dal dañuy xaar ba xaalis mat comme ngeen xaalis matul mm-hmm. ngeen bàyyi ba xaalis mat ñu fayandoo ñëpp mm-hmm. moom mu jël engagement ne kon avant le 10 décembre 2023. 10 décembre 2023 2023 bi dee leen fay dina fekk xaalis bu mat parce que moment bu ne un milliard huit moo fa nekkoon si jour boobu bu si colonel yi toogoon xam nga colonel yooyu yàgg nañoo toogoon ñoom ñu ñuy gëmloo ni xaalis mat na état yu mm. ma waxee la man ko yow monsieur wax ak parce que man laa boo xamante ni ñoom ku nekk na jox naa respect ñoom ñëpp laa jox cër mais dëgg yàllaa ko moom si ñoom amul kenn ku ku may ku may ku may taxaw si ñoom te duma la wax li si ma ne ko ñoom ñii colonel yii ñoom ñoo toogoon ak ñun duñu gëmloo ni xaalis mat na dina gëmloo ni lépp pare na signature ministre de euh, ministre des finances la ñuy xaar Mamadou Moustapha Ba ñoom ñu ëlbatiku ne Mamadou Moustapha Ba signé na looloo waral nag suñu génn yu bëri yi ngay dégg looloo ko waral parce que nit mënoo ko dig ba pare nga ne ko li ma lay jox xaalis baa ngi nii tege lépp mat naa pare te joxoo ko. te président lañ jox leen ko. te président lañ jox leen ko président signé quatre points yëpp na ne euh, rek leen problème problème invalide bi bi moom ministre bi waxee bu ma ko bi xamatul lu may tontu ñoom kon yi mën a waxal kenn tontuus parce que ñoom ñoo ñoom ñoo waxoon loolu te biñ koy wax si kanam lépp mat na ministre bi daan na xaalis matu li ma leen wax daal jàpp nañ ko xaalis matu un milliard huit cent moom moo fi nekk ma ne ko léegi un milliard huit cent yi kon léegi denc ko nga jàppal ñu dat kañ lay mat ñu jàppal ñu ko dat de moom moo jàpp datu boppam moom moo ne avant le 10 décembre dee leen fay bu mu ñu waxee loolu ñu proposé ko ne ko léegi da nga ñuy bindal këyit bu bu firneel yaa jël engagement mu bind ko bi mu naré jug dem ba kay def déggu rek dé yeen autorité militaire yi toogoon foofu ne ko non non non jaru ah non si parce que le maire dafa lèr dafa clair ba nu xëccoonte foofu sax ministre né non graw maa leen wax respecté les sama parole mané ministre bi carrément Omar Youm mané ko monsieur le ministre mané mané ko ñongi soko ko yow nit na ci carte lañ kay jappé ci carte lañ kay bàyyi comme nak musoo digënté ak musoo digalé ni yaa ngi soog a diggaale li nga wax mom lañuy japp ak keroog may gis respecté ko par yàlla dogal si diggante bi ñuy voté ñuy voté budget budget mu taxaw ensemble national euh, Guy Marius Sagna laaj la posé waat ko même question ne ko ministère invli bi gis ñuy ñuy kaas si mbedd bi chaque jour mais seen commission ad hoc bi fu mu toll ministre bi moom devant devant les euh, les mu taxaw digg ensemble national jëlaat engagement yooyu ne ñoom wax nañ leen ne avant le 10 décembre dina leen dina leen te bi mu waxee loolu ñëpp kontaan ne ah ginnaaw taxaw na digg ensemble wax lii devant tout le monde xanaa lii kay moom mooy jeex na li moo lii lii dara gënu ko noonu garanti. Mhm. bi ñu toogee le 10 ñu xool ñu le 10 le 10 décembre dimanche la tombeel ñu wooñu le 7 non sa fois le 8 le 8 woo ministère kon ne Alphonse Sarr recevoir ne sant leen yàlla ñun ñu kontaan. le 8 décembre. avant le 10 bi. avant le 10 bi wa 2 jours avant le 10. mu ne sant leen yàlla ñun ñu contane ne alhamdulilah mu ne xaalis mat na lépp mat na di len commencer fay bi inshallah rabbi rabbi d'ici lundi. ok comprendre nga. ngeen gën am ko déglu ma rek mais so len démé ginnaaw ñu ñoy ñu ñooy dox à chaque fois si diggante ñu nekk invité ñoo ñoo nekk ci diggante bi di dox. def médiation mu ne mais soo leen demee gëmloo len seen gaay yi bay bu jodi manam parce que paiement yi. du duggandoo lépp lépp ñu hmm. ne ko amul problème mu ne daal xam naa ne lën daal dina commencé. ñu hmm. demee tamit suñu panel bi ñu gëmloo leen ñoom ñëpp xamal leen ñoom ñëpp ni paiement yi jeudi la ñoom ñëpp ñu kontaan dafa leen surprise lundi bi effectivement lundi bi am na ñu commencé jot recevoir seen xaalis hmm. ñu def remarque ni ñu doon génn di mars ñëpp kenn jotul si. ah d'accord ñi nga xam ne mos ñu génn. ñoom lañ maanaam retraité yi ñi nga xam ne dañoo liggéey bu retraité nekk ay infos liggéey bu retraité bàyyi daal si gàttal. troisième âge daal lu mu gis ni daal ñu commencé leen dox maanaam ñoo xam ne ñoo def carrière armée liggéey bu retraité nekk ay infos ñoo leen gis ñooñu ñooñu di recevoir bu ñu toogee deux jours trois jours man man en personne moo ko man ko man moo colonel ah affaire baa ngi man affaire man benn côté rek laa ko gisee. dafa mel benn côté mun noo neewoon naa leen nag paiement yi parce que effectivement waxoon su amee ay erreur ñun si tëb ñëwaat leen ngeen signalé wu. mais tëb boobu dafa ëpp. yow tëb yow yow yow moitié bi sax fayoo leen moitié bi sax fayoo leen. ñu leen. léegi ñu ñu ñu demandé ñu ñun léegi ku nekk da sa compte banque nga uti li may wax na soo moo koy leeral nii benn par benn dama bëgg président Macky Sall. mu leer ci boppam wala soit ñu ko jege mu xam ñun li ñu tax a jug. li waral mbir bi lan moo xew. lan moo waral marché yu bëri. marché yu bëri lan moo ko waral. te nag dinañ te nag dinañ dinañ génnaat génnaat moom dinañ dinañ ko def suñu suñu joxul suñu xaalis. yàlla balaa ngeen di génnaat mu rek. non parce que bëgg nañ ko ñun suñu sañoon dañuy jox suñu xaalis te duñu maas parce que li nit ñi mën kenn dàquñu ko ñun armée ñu jàngal lu mu ñu jàngal formé ñu xeex kenn dàquñu ko fekkee fit kenn ëppuñu ko mais dafa am lu ñu jombale suñu bopp parce que dañoo servir national bi ba pare ñun dafa am étiquette bi ñu takkal ba pare moo tax mënuñoo génn def yenn mais li nit ñi mën mën nañ ko. lu fukki lu fukki civil man benn ancien militaire mën na ko ñoom nag li may wax xam na ko bu baax ñoom autorité yi mais ñun jomb na nañu def loolu mosuñoo mosuñoo def mosoo gis invité militaire moo ñu mars ba toj sa jàmbur wala soit ba lakk au contraire ñoom ñoo ñuy gazé ñoom ñooy yónnee ñu ñuy ñu ñuy. su ngeen di mars si ñu ñuy gaz du ñu dóor du ñu toroxal pourquoi loolu si ñoo xamante ay handicapé lañu. ñii ñii seen tànk dafa dagg ñii seen loxo dafa dagg lépp ci seen ah, mission moo leen dinoo silmaxa ngeen leen jàpp di leen gazé di leen jàpp yóbbu kaso man mii tëj na ma fi kaso pourquoi loolu ñu noo mérité loolu ñu si lan si laaj say ak ak say yelleef kese mais léegi ñun si ban réew la nekk si ban réew la nekk moo tax su ma gisee civil di di parfois di ñaxtu la moo tax ñu leen ñu leen di dóor mais kuy dóor mais kuy dóor ay ancien militaire yoo ne dunoo dunoo service seen réew ko ko di nga bàyyi civil ancien ba am ba ba amee ba amee laago ñu lay toroxal si digital la gaz di la dóor xam kuy def loolu mi ancien militaire invalide mais kon kooku kon du bàyyi civil bi te ñun dañoo war a respecté war a jox cër il est temps ñu jox ñu cër bu ñu moom bi ñu defee loolu ñu demandé ñu ay rib te ñu njëkk a fay kenn demandé leen rib parce que ñoom su weer dee jotee su la su la jox sa pension ku nekk xam nañu sa compte sa pension du la laaj du la laaj numéro rib ñi nga xamante ne amuñu amuñu woon compte trésor la lan lañ fayee ko ñu ñu leen force ne leen leen ubbi leen compte force pour ñu envoyé leen xaalis bi hmm. général Moussa Fall naa ko tudd. général Moussa Fall moom mel nu mu ci dugalee loxo. si parce que bi problème bi bi problème bi euh, bu mu déggee problème bi yëkkat na téléphone am wootee woo wootee xamal laaj na lan la qu'est-ce que sama lu xew parce que DIRPA loolu dama ko tëb parce que DIRPA bi bi ñu paiement yi commencé lundi mardi DIRPA dafa génn communiqué njëkkal ko mm. xamal ni militaire invalides yi euh, commission ad hoc bi na leen ko dina ko fay commencé commencé commencé nañ ko fay. amul biir pas commune ko ba la génne ñu xëy télé yeeg rajo yeeg ñëpp amee journal ñëpp amee te te fay bi doon doog te fay bi da doon soog a commencé pourquoi ñun avant ñu ñuy fay génn ñu communiqué ñoom ne ñu fay ñu ba fay bi commencé mu bëgg maanaam. médiatiser ko maanaam médiatiser ko pour pour gëmloo président ñi li nga li nga santaane ñoo ngi koy def imagine toi décembre ba tey février te moitié bi joxagul seen xaalis pour ko teg. fu mu teg loolu te moitié bi jotagul seen xaalis loolu lu ma gën a métti lool noonu si la bokk te parce que loolu tas na famille yu bëri parce que am na ñoo xam ne ba tey seen famille jàpp nañu seen ñoom jot nañu jot nañu jot nañu seen xaalis ne dañ ko lekk wala wala wala sol dañ see def dañ ko def naka su dul noonu est-ce que biir pa génnewaat na communiqué ne paiement yi am na retard defu ko ba tey kon ñoom leen arrangé rek la ñuy la ñuy la ñuy génn communiqué. xam li setal seen der mais loo xamante ne arrangé wu leen doon si def communiqué. mu doon lu nu metti parce que dafa mel ni ñoom division bi ñuy bi ñuy bi ñuy wër bëgg ñoo diviser. dafa mel ni ñoom si loolu la dox ba tey te président bëggul loolu président dana ñun pour ñu nekk benn te ñu nekk lu benn. kon ñoom ñoo ñu bëgg a jaxase. dañ leen bëgg a réparer daal. léegi le bis boobu su leen commencé jox ñii bàyyi ñii am ñoo xam te ba tey joxaguñ leen seen xaalis léegi pourquoi loolu te loolu premier point bi la rek premier point bi rek fi mu toll nii rek décembre ba tey am ñoo xam joxaguñ ba pare ñu teg si nag suñu pharmacie yi grève deux mois ñu jëluñu jëluñu ay garab. ndax lan loolu. ah ndax lan pharmacie nee na état bi leen yore war leen fay fayu leen. est-ce que yéen dem ngeen ci seen ministère yi nga dem nañ fa ba sonn waaye sax soxna si da ngay dem ba sonn ñun heure boo génne gisee ñu génn mars rek ba léegi mënoo leen jot seen ci euh, ministère lan lañ leen wax ci affaire garab yi dèjà sax dan la fu ñu booba tey kenn nangu ñu recevoir ñoom ñëpp nag booba tey amatul kenn ku si nangoo yëkkati téléphone am woote man yëkkati naa sama téléphone woo colonel Arfan non ko signalé ben cas muy kaawu muy kaawu Cheikh Ndiaye parce que Cheikh mom ma sha allah fu mu teud da teud ci kaw lalam mu bouge mu def dara Cheikh bala mo lek day jël garab bala mo soxla bopam day jël garab ay garab cheikh cher ka kaa jëndal da nga wara fay ko pare mais dafa mel dal ñom binu binu binu binu eh, binu binu bi fay nit da na mo wax la benn ñu ci bari seen xaalis garab garab garab dañ ko jëndee ba mu jeex parce que lu commencé fay xaalis si pharmacie yu tëj mais c'est forcément di nga dem dundal jëndal sa bopp amuñ droit pour jënd garab ñoom ñoo war a jox garab noo am pour dem si médecin bi médecin bi signé chaque weer déjà médecin bi da ngay dem signé sax boobu mu wàññi bi mu def lu leen neex mais nag kanam borom a koy fajal boppam de. si naka. mbajum kanam fajal boppam. non ñun ñun ñun ñun dañ ko fajal suñu bopp ñun. boobu ba tey nag ñoo ngi yëglu boobu ba tey ñoo ngi yëglu def nañ fi ay demande de marche yu dul jeex kenn duñu ko may fan lañ ko teg te soo génnee marche forcé marche ñu non da nga waroon da nga waroon bind demande kon yow suñu bind demande ma demande de marche dootuma ko bind bindal ci kenn bu ko benn autorité xaar si man te su marche jotee dinaa marche lu ma si góobee nag gar ko lu ma si góobee naa ko gar lu ma si fekk ma xam ne lii moom si fekk parce que ba may engagé wu dem armée damaa signé sama dee papier vert soo signé pare dan lay laaj lu mën a xew ëllëg kan la ñuy woo kon ça veut dire que soo dee ëllëg kan la kan war a woo métier métier arme armée métier bu noble la métier boo xamante sooy def da ngay signé sa dee sooy dem sur le que sur le terrain mu leer na fii ngay dugg nii mën nga fee des da ngay dem ak moral bi kas di ree te yaa ngi dem si toolu si ñi nekk si bunker yi ñi naaj bi di naaj seen kaw muy taw seen kaw dafa metti hmm. président Macky Sall moom li may wax ni xam na si dara parce que ñu mu jëlee réew mi dem na dem na seeti militaire yi xam na bu baax militaire li ñuy dund moo waral macha allah mu yokk seen i salaire defal seen bagage mais ñu dañoo war a geesu parce que raxasit avant mi nekk raxasit ndox la woon hmm. ñun nañ ñu respecté jox ñu cër bu ñu moom hmm. keroog bi booy bi génn ñaari fan yi mënu noo génn ah. rax si la mënu noo génn balaa ma balaa ma balaa ñëw àggali sax ndax comme li may wax rek saa su nekk euh, nit ki bu amee lu ko metti di ko wax foog naa ne ñëpp ci war a ànd ak moom ndax li ngay wax yow mi ku dégg li ngay wax fu leer ko ko teg te it ñun tamit ñuy waxaat encore une fois rek président de la république mu gestu leen mu jël li nga xam ne moom la leen war a jox seen ak seen lekk mu jox leen ko ndax seen nation ngeen doon servir dangay wax léegi daal di tuddaale li nga li nga xam ne booy bu ñu doon génn nga nekk comme ni nga waxee milité invalide ku ne xam ne ci armée nga bokk kenn du la mm-hmm. ci génne nan ngeen gisee actuellement situation réew mi waaw situation réew mi xanaa di woote jàmm xam nga euh, nit moom su amee lu ko metti rek euh, surtout mu bëgg ko bëgg ko ñaxtu nga ne ko doog fi ñaxtoo loolu day day yokk mer bien vrai que nak d'accord mo si yak d'accord mo si tal parce que ñu ni yàqal ñu taal seeni oto di leen yàqal ñooñu ñu len dara sincèrement ñu len dara ben Sénégalais bi gor la ba dajalé ba dajalé ay mbiram teg di lu kon yo so méré jaru nga yakali koku parce que ko nga yakal après lolu lolu état bi la lay la lay fenc mom li ñuy yàq ñoo ko moom jarul ñuy yàq. est li nga wax léegi genre bu ñu génnee war a def euh, marche wala kaas wala ñaxtu ñu autoriser leen li ñu war a def. mais loolu mooy yoon parce que parce que autorisation marche dafa bokk ci sàrt réew mi da nga am droit soo bëggee ñaxtu sénégalais ñu duñu ay jaam duñu ay jaam ay nit njaay lanu nit su amee lu ko met ci réewam am na droit génn ñaxtu am na muy ñaxtoo. Mm-hmm. kon tey man dama jàpp tey xam nga tey. ñun tey suñu demee tey ba force ba génn mars mais ñoom autorité ñoom ñoo ñoom ñoo si poussé xam nga ñu si poussé. parce que ñoom dèjà du lox dëgg du lox li réalité li am mm-hmm. ñaareel ba soo def soo defee fi nga war a jaar ñu la jaara fi nga war a jaar nga jaar fi nga war a jaar sa ak ak sa élève du du du du la ko jox finalement looy def. forcé da ngay forcé da ngay si am jël. ñun nag ki ñu soxla instant bi mooy ndey nag comme euh, li nga wax lépp am na solo foog naa ni lépp lu métti sa xol wax nga ko te bu yàlla incha allah ñëw nga kër gu baax bi diaspora 221 foog naa ne euh, euh, monsieur le président de la république dina ko dégg yan kàddu ngay wax ñi nga xam ne ñoo jiite waaye yan kàddu ngay wax président de la république balaa ngaa tàggatoo. waaw président de la république li ma koy wax muy chef suprême des armées li mu bëgg suñu problème ñun militaire ancien militaire invalides yi moom mu jël ay responsabilité am parce que moom moo joxe woon ndigal ne dafay def commission ad hoc ba signé ko ba pare te kilifa kenn du teggi ay waxam fekkee nag li mu ñuy jox yéene nañu ko te mu ngi dégg man boobu ba tey fu ma toog musuma toog fenn te ne mu président nanu recevoir te président recevoir na ku ne man man xam nga lu ma jaaxal recevoir ñu recevoir nit ñi daar daar su dara amee ñu woo la léegi léegi pale wala ñun wala ñun ñoon dañoo gën a nekk ay sénégalais xam nga loolu loolu loolu day métti xol quoi moom mun ñu recevoir toogoog ñun ñu wax ko li nga xamante ni moom mooy réalité bi fekkee dañ ko wax leneen man benn autorité armée laay gërëm muy général Moussa Fall parce que suñu problème bu mu bu mu kiiwee moo yëkkat téléphone def ci ay démarches mais nag ci fi ñu toll nii nag ki ñu soxla mooy président daal daar daar daar ñu fay ñi nga xamante ni ñoo des yenn point yooyu ñu fay ko ba pare jotaat suñuy garab loolu moom mooy problème bi loolu mooy suñuy soxla parce que nag keroog noo jëloon décision pour mars par yàlla dogal ñu aj ñu bu mu nee dafay aj aj élection yi ci lañu commencé gis dëkk bi commencé yongu dugg suñu panel ne gaay yëpp nañu ko mhm. am na sax ñoo xam te ne woon nañu non noonu profité génnaale mhm. comme comme ni la demee noonu profité génnaale mhm. ñu ñu téye ñëpp ne leen non

kon noonu jàpp ni kon ñun mën na nekk vingt mille vingt mille vingt mille et quelque fii si réew mi mhm. kon ñun am na lu ñuy représenté si réew mi noonu jox cër bu nu moom mhm. président de la République noonu noonu recevoir mhm. fi mu toll nag ñoo ngi lii ma def nii tey dama ko def pour yëglu parce que bëgguñoo tëb tëb rek génn mais nag bis bu ñu gisee si mbedd bi xam ne lii moo tax ñu gis ñu si mbedd bi leneen taxul ñu gis ñu si mbedd bi pour leer parce dañuy ba ñu génn ñu ñu ne ñoo ay politiciens ñoo nekk suñu ginnaaw ñoo tax ñu génn déedéet damaa bëgg daal ñu xam ni suñu génnee li tax ñu génn mooy suñu fay paiement bi nga xamante ne ñoo fay ñuy bàyyi ñu paiement bu yéex te président dama de la de la santaane ko mu yéex moom la ñuy ñax te bëgg nañ na balaa àgg foofu président recevoir ñoo pare fay ñu fay ñu suñu xaalis incha allah foog naa ne président dégg na leen ah, te it eh, ministre yi nga xam ne rek ñoo ëmb lépp lu ngeen bëgg rek eh, ñu ngi leen di dégg leen wax nag encore une fois ngeen jox ñi jàppale leen ndax comme li ma doon wax rek ah, seen réew lañu taxawal seen réew lañu jàmmaarlu pour xeex li nga xam ne rek mooy seen ak seen yelleefu réew waaye tamit pour protéger seen doomu réew mi di la wax di la jaajëfal bu baax baax kontaan nañ ci yow te yàlla na lépp eh, sotti incha allah